Mali bu nekk bërëb boo xamante ni macha allah bërëb bu neex la piix meeg ñuy ëpp yaa ngi gis ni euh, neex na daal macha allah tey nag ñu dalal kenn koo xamante ni euh, xarit la ci guy gi doomu ndey la ci guy gi ndax wolof daf ne foo pikiroo ma naan fay doom euh, dañ koy bàyyi mu nuyu présente wu su ko defee ñu wéyal ci waxtaan sama waaj maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar wér-wér ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si yoon bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ. sëñ Paate Seck borom Canaba di ko ñaanal yàlla may gudd fan ak wér di nuyu sama benn grand nas di nuyu Wara Sarr di nuyu waa kër Wara Sarr yëpp di nuyu sama papa guy gi di nuyu sama jantal grand ku baax si man bëgguma ma trop yemalewu ma ak dara muy Pape saw sama xarit la moo jëkkër maam Basim jëkkër xawaa sama xarit la sama doomu ndey la sama lépp la fu la may féete di nuyu sama doomu ndey papa boo jine di ko ñaanal combat bu jëm yàlla may ko si si darajee Seydina Muhammad di nuyu am Ndeye Gueye di ñaanal Sénégal yëpp yàlla na fi jàmm yàgg. tur bi maa ngi tudd Baro laa tudd Baro bu guy waaw. mais euh, da ngeen dugg ci komba boo xamante ni jàngoro yëpp dañoo dajaloo ngeen jël Siteu te du wér ngeen dugg ci rëg-rëg. rëg macha allah gis nga empreinte bi nga xamante ne def na ko ci bëre simple rawatina ci bëre dóor bi dugg waaye am lu mu fa def daan Elton ngeen jël ko euh, loolu du risque ci yéen. non au passage nuyu Elton sama xarit sama doomu ndey mi ngi États-Unis maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér non Reug Reug du risque si guy gi parce que Reug Reug champion la de guy gi nangul na ko champion mais moom na nangul guy gi champion làmb la moom dafa jël combat bi toog si ci di wax chaque jour guy gi na ma jël guy gi dafa ragal lii ak lii ba guy gi jël ko kon saa di amatul lu muy arrière si combat bi xam nga lu ñu koy ñaanal ak gudd fan ak wér wala mu waaj mu waaj ak ay mbokam guy gi tamit waaj ànd ak ay mbokam ba laamu ja jël na guy gi mais xamul guy gi te guy gi daa xam rëg rek mais rëg rëg dafa mel ni euh, baro dafay dafay sous-estimer guy gi ci ni muy waxee dafa mel ni moo ëpp kàttan moo dàq bëre moo ëpp mystique guy gi moom liñ koy sant mooy mu ñëw làmb ja kese doo tiitoo ci lool non man guy gi ku nekkul ak moom yaay tiis ci lool mais ñi nekk guy gi dëkk ak moom xam nañ guy gi lu mu capable ak lu mu capable parce que guy du ragal mais réew dafa yaakaar ne guy moom benn noo ñax que am fi jaaroon duñ na noonu moom loolu te loolu lañ ci mais bi ñu mi ngi waaj te réew xam na ne am na combat. ana guy gi mi ngi Sénégal. guy gi mi ngi Sénégal mais mi ngi waaj a delluwaat États-Unis parce que dafa préparé combat naqari naa gis jafe naa jot. non guy gi mi ngi toog rukom rek. toog ko parce que moo laaj loolu quoi parce que dafa bëri wax làmb nii parce que a ngi wax guy gi rek rek moo ko mën rek moo ko léegi bu arbitre sifflé ba guy yu dongali stade dëngal tànkam yooyu noonu ba arbitre ne pirip laa <laughs> illaa su waa ñu xam ne ni basi góor a koy bay te Reug dafa yaakaar ne moom moo gën a xam guy gi lebu yi guy gi daa am ay ay mbokku lebu guy dafa am ay mbokku lebu te Reug xam guy gi mais guy gi ni mu xam ni ko Reug la xame noonu la Reug rek guy gi noonu xamee Reug rek te guy gi mi ngi waaj bu baax a baax te ku gis guy gi xam ne guy mi ngi waaj